Italië, je deel xew-xew bu neex bii xayoo dikk na ak xéewal yu amul fenn Rayo moi quatrième opérateur de téléphonie fixe du Sénégal basé à ca Matam depuis 2015 service Rayo yi mën nga ko am fait Pour dem ci petit foo nekk mën nga wut abonnement surtout y ni ni yi fête Italie so bëggee xéwalu ci bànneexu Rayo da ngay sa carte d'identité Sénégal wala sa passeport nga di am ci application Rayo avec numéro de téléphone bu bees li ci gëna neex ak 10 euros mën nga wuti une heure de temps Sénégal 5 euros mën nga am 40 minutes de communication yokk si nag 15 jours yu nekk waa Xayo dinañu def promotion 100 ou le wala 200 pour ngir gën a yokk sa waxtu waxtaan ba sa xol féex ak waa Sénégal su fekkee da nga bëgg liggéey ak Xayo nag te doon revendeur di jaay crédit wala nga bëgg puce pour woote gën a yomb te neex mën Joko Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie T 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 Yomi dawal ka sa abonnement Hayo ngir السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk yi ànd ak seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi ki fi toog toogaayu ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di Sëriñ Muntaxa Bachir ñu ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi loolu Mbàkke te wéral ko ak njabootu sëriñ Touba gépp di nuyu ak sëriñ Serigne Basiiru Mbacke Anta Ñang mi toog toog ay borom Daarul Muxti di ñaan sunu borom yàggal ko fi lool Mbacke te wéral ko ak njabootu borom Daarul Muxti gépp muy njaboot gi nekk ci biir dëkk bi njaboot gi génni ko di ziyaare bokk yi ànd ak ñun waxtu wu nekk diiru weeru Shahbaan wi di baraxlu teru ci seen émission yi ñu tuddee xamle njabootu Ceerno jot na te ñu doore woon ko ci Cheikh Mamadou bal la kon biir njabootu boroom daarul moxti googu nag dañ ci beral ab nuyoo ak ziyaara njabootu kii ñu fas yéene waxtaane tey kooku nag du kenn ku dul ko way juróom borom daarul moxti duppee magam ja sëriñ ahmadou dam fati kon ñu ngi ziare Serigne Maam Thierno Daam mi toog ab jotaayam ak njaboot gépp di nuyu ak ziara Serigne Aydara Mbakke moom Serigne Daam Faati am mbégte lool fas yéene waxtaane kenn kook ci njabootuk borom daarul moxti la bokkoon di sëriñ daam fati moom mu ngi feeñ ci atum 1933 soxna Kumba Fall mooy waajuram wu jigéen borom daarul moxti mooy waajuram wu góor mom ak kii toog tey jataayu borom darul moti di sëriñ Basiru Antañang senuk magante ci ayub bis la toll sëriñ daam sering magee sëriñ Basiru Antañang ayub bis ndax bis bi ñu doon jox sëñ bis bobu ci la Sëriñ Daam Faati feeñ bi mu matee jàng alquran boroom daarul moxti moo ko dalal bindal ko ci àlluwa sako ko waaye gannaaw ba boroom daarul moxti jox ko sëriñu jàngalekat bu ñu doon wax sëriñ Tayba sëriñ Tayba moomee bi ko borom daaru mu ci joxee sëñ daam faati ko waxoon ni ko mokkaluk daam faati mooy sa texe boo defee ci moom alxuraan mooy sa texe ba tax na sëñ Taïba taxaw ca lool ba la ca waajuram bëggoon mu def ko ci sëriñ Dame Faty fukki at la fi def ak waajuram borom Daarul Mooti 1943 borom Daarul Mooti ñibbi àjjana sëñ Modou bal la toog di mborom daarul moot sëriñ daam jël sëñ moo daaw balla def ko muy borom daarul mooti waxoon naa leen ni sëñ moo daaw balla njabootu borom daarul mooti yi nga xamante ni bi fi seen waajur di bàyyi ko ay tuut tànk lañu toll ci ay fukki at te loola mooy sëñ daam sëñ Basiiru Anta Ñang sëñ Meqdaat ñoom fa leen borom Daaru Muxti waroon a féete sëñ Modaw Balla moo leen fa féete loolu li ciy firnde mooy waxoon naa leen ni sëñ Bas Anta Ñang nee na ma ngir mu dem jàngi xam-xam ci sëñ ko Kosow sëñ Modaw Balla daf ko neexale juróomi junni sëñ daam Fatim itam déggaloon sëriñ Modou Awa la daa ko doxal yu bare bari sëñ Modou daa ko yónni am na yónneen boo xamante ni bii Muritani la sëñ Modou yónni ko mu bàyyi ko fii ba gànnaar déggal ko lool ba am lu ko sëriñ Modou bal la daan wax sëñ mu raw bal la daana ko wax ni ko yow de bu ñëpp meloon yow duma ma ndax loo am indi nga ko jox ma ba noppi bàyyee ma bàyyee ma ak li ma am te moona na de ñàkkoo ay soxla waaye doo am soxla ba ma yëg ko yow kay da nga may indil waaye doo jële kon am na fu ko magam jooju tegoon di Cheikh Mamad Xawa Balla ndax sëñ ma daw Balla dafa wax sëriñ Daam Faati ni ko dafa am lu ma sama waajur dénkoon kere ba ma koy dénk na ci keroog bent ñi la nekk maak moom ak yàlla ak malayka yi boroom daara muuti ni Cheikh Mamadou Hawa Balla dénk naa la njabootu soxna Kumba Fall gi ak soxna Xëri Fall ndax ñoom kat dama a amel dama am bor ci ñoom ba loolu taxoon na Cheikh Mamadou Awa Balla defal Serigne Ndam lu jafe te loolo mooy lan mooy bi mu ko gërëmee ngërëm loolu ni ko loo am jox ma te lu ma am nga bàyyee ma ko sëriñ Modaw Balla jël na ci ay taalibeem jébbal leen sëriñ Daam ku ñuy wax sëñ Thierno Dieng yal na ko yàlla yërëm dawlu na te mu dëkkoon luumeen ñu tuddee ko boroom daarul mooti taalibeem Cheikh Mamadou Hawa Balla woon mu jox ko Serigne Dame Faty ak Modou Kara Gueye doon turandoo Cheikh Mamadou Hawa Balla te dëkkoon siir gi goog sëñ Bàcc Ka sëñ Mamadou Hawa Balla jébbal ko sëñ Dame Faty te aw turandooma mu doon ab taalibeem ku ñuy wax Samba Sarr te mu dëkk ci dëkk bi ñuy wax Joro Mamma nekk ci wetu kër Amadou Yàlla moom it sëñ ma daw bal la jël ko jébbal ko sëriñ mu raw bal la mbokk yi loolu dafay wone sëñ Madaw la fa mu tegoon sëriñ Dame mu déggaloon ko lool def ko muy borom daarul moxti bi mu demee ba gisatu ko magam sëriñ Aydara Mbakke mi mu duppee sëriñ Aydara moomam mii mu dal di yeeslu ci moom te fekk na dañoo taqaloo woon lool jaxasoo woon lool am fu ko sëriñ ay dara tegoon sëñ daam fàcci bi fi sëñ Modaw Balla di nag ak jaxasoom ak sëriñ ay dara am na bis mu ñëw ci sëriñ ay dara mu am lu mu ko woon ni ko lii dey aw sas la booba lu ñu doon laaj la bu mu sëñ mu daw bal sas wax ko lim ba lan la sëñ daam faati def dafa daldi dem këram daldi jël lim boobu nga xamante ni Sëriñ Aydara wan na ko ko ni ko aw sas la wuñu ma sas ba tax mu woowoon ñenn ci taalibe yi ngir waxtaane ko ak ñoom bi ko waxee sëñ Dame mu daal di dem këram daal di jël lim ba ñëw indil ko Sëriñ dara ci jataay bi sëñ ay dara daf ni mbooloo ma lu ngeen di xujooral man ngeen a jóg dem daam béy na sas wi <laughs> xam nga sëñ ay ndeysaan dafa xorom woon lool loolu dox na diggante sëriñ Aydara ak sëriñ Daam Faati sëriñ Aydara doyloo woon ko lool defoon ko ay tànkam bariwaa na ci taalibe yi sëriñ ay dara yi ku ci mas am gan sab dennandoo am gone sëñ daam faati moom la sëriñ ay dara daan yabal ngir mu dem joxe ko wutur maanaam tudd ko bu dee ko wàññi ko itam moom la daan yabal ngir mu dem jullee ko kon doyloo woon na ko lool lool lool ba loolu daana ko ko sant moom sëñ Daam Faati li nga xamante ni bii man moo ma gën a marqué ci moom mag ñu bari moo di dëkku waajuram bii di darul Mouhty magam Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké daf daan wax ni da ngeen a amoon dëkki cosaan ak tolli cosaan bàyyi ko ñëw fekk ci sëriñ bi te mu jar ko sëkk la ngeen xamoon sax nungutu leen a xam dara da ngeen ñëw ni ko noo ngi nii xamunu dara sëriñ daam faati nag ña defoon loolu ak seenu njaboot ñoom la taxawoon ngir aar leen ndax moom dafa bokkoon ci ay jikkoom bëggul ku néewal doole nit dafa mel ni ca ñu gën a néew doole maanaam ñoom la daan àndal ngir aar leen fii ci Darou Mouhty gis nanu ba tàyyi booba waa contrôle économique contrôle de prix lañ leen daan wooye ñu daan doxe nu leen neex buñ ñëwee ci yaxantukat yi di commerçant yi laaj la xaalis boo xamante ni du dugg ci trésor duñ ko bind fenn di leen gund xataan waaye loolu saa bu masaa am gis nañu sëriñ Dame Faty mooy ñëw taxawu commerçant yi daarul Muxti yooyu am na ci yoon woo xamante ni biir gendarmerie la leen fekk xotti seeni carte ndax bu doon liggéey bu tegu ci yoon dana ko nangu waaye nag la doon def dañ ko tegul ci yoon moo tax dafa ñëw xotti carnet yi ni leen génn leen sa dëkkub bàyyi douanier itam noonu la ko daan def ak ñoom sa bu ñu masaan jalgati mbaa ñu jaay nit doole sëñ dam fati mooy jóg taxaw ngir défendre commerçant yi ngir défendre ña nga xamante dañu leen a jaay doole am na fi at moo xamante ni nawet bi dafa demewul na mu war a deme ba am na ci béykat yoo xamante ni mënuñu woon a fay seen seko ku leb amoo loo fayee li tubaab di wax abus pouvoir gouverneur booba Daaru Muxti ci njaareem la bokk ñoom ñu jàppe woon seen mbopp ay buur gouverneur ñëw fii jël béykat yooyu nga xamante ni fayuñu seenub seko ndax ñoraluñ ko amuñu ko mu dugal leen ci biir seko yi di leen puudar tëj leen fa waaye ba ko sëñ daam fàtti yëgee moo jëlub martoom ñëw dajji buntu ya génne leen amoon na otoom boo xamante ni ay haut-parleur la ca branché woon ca la topp gouverneur naan ko wuub sàcceey wuub sàcceey di ko daq ba mu génn dëkk bi wuti Tuuba kooku mooy sëriñ Dame Faty bokkoon na ci ni mu daan aare way néew doole yi sëñ Dame Faty dawul tëju ndax su fekkente ni dafa tëju mën nañoo néewal doole nit mu ñëw bëgg koo gis ñu ni sëriñ bi daa tëju walla dafa fatu loolu tax na ci marché bi am na commerçant bu daan wax Abdou Fall mooy bàyyi Abdoulah Fall bitiga bi ngi nekkoon fii ci wetu garage bi foofe moo doon euh, ki nga xamante ni bii fala la sëriñ daam daan toog wala fii kër borom daaru Muxti gi nekk tey lam ci jublu mooy ku ñëw bëgg a jalgati rek ku ñu néewal doole rek boo ñëwee fekk ko fa te loolu di lu am solo ndax loolee sëñ Abdou Khoudous doon wax ci nit ñi dañoo amoon ay dëkki cosaan ak tooli cosaan gàddaay ko fekk si borom daarul moxti kon kenn war leen a néewal doole man li ma gën a marqué ci sëriñ Dame mooy taxawu googu nga xamante ni doon na ko taxawu way néew doole yi doon ko taxawu pakk waajuram bi di daarul moxti mu doonoon itam nag jaamukatub yàlla nun bi gënee doon ay gone këram dafa takkoon ay rajo yoo xamante ni bii guddi def daan tudd yàlla ca kaw la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yaa rabbi sidini xayraat maanaam di tudd turi sunu borom yoo xamante ni bu daan naweta bu Euh, mbaq bi xam nga éco bi muy def booba daaru muuti amagul ay làmp waaye guddi gi sëriñ daam faati rek ngay dégg muy sikkar ca kaw ci micro bi turi sunu borom yàlla joxoon ko itam nag ab taar euh, colog sëñ daam faati amatut suwa la daan solte booba suwa yombul amoon ab taar lool waaye nag doon jaamukatub al euh, euh, euh, yàlla bopp noonee mu daan fanaanee tudd yàlla na la taxoo woon itam ak jàng alquran am lu mu bokk leeg magam Serigne Abbas Mbacké te mooy bëgg a mënal sa bopp ba aju ci kenn loolu wax nañu ni waaw euh, mbokk maa may wax ni ma sëñ Aydara 1994 euh, <laughs> la ñibbi aljana euh, sëñ Daam Faati ku takkoo woon ak alxuraan la waaye ku teel a manal boppam la ndax wax nañu ni sëñ Tayba mii ko doon jàngal alquran mu doon ab dongob daara ne ca daara ja moom moomu borom daaru muuti ni koon bu daam mokkale alquran mooy sa texe wax nañu ni sëriñ daam ba mu nekkee ca daara ja sëñ Tayba moomu am na gan am tudd am jafe-jafe xarum tudd fekk na sëñ daam Fati bi mu nekkee ci daara ji am na xarum yar moo xamante ni bii moo ko moom doon yar xarma ma keroog sëñ daara boobee di sëñ Tayba xar ma la ko jox ñu tudde ko mu daa mu doonoon ku daa dimbalee sëñ daam jamonoy nawet am na ñooñ dañ daan leble xaalis bu ñu la joxee ñaar téeméer bu sa mbéy noppee bërigo nga leen di jox moom lañ daan wax lépp leble bërigo ñaari téeméer ndax loolu la sëñ daam daan def déedéet ñi mu daan lebal daf leen daan woo xam ni ñii yitte woon nañ ko mu jël ab lim jox leen ni leen bu ñu eggee ca waxtu wa lim bii ma leen joxoon moom ngeen may delloosil bu leen ci teg ab dërëm loolu da ko doon jàppale ñi gàddaayoon fekk si way juróom borom daarul moot demoon na ba mbirum yaxantu commerçant yi fi nekk lu mel ni suukar ak warga daana ko saytu ngir doon seenu grossiste boo xamante ni dañ ko daan jël si ci moom ngir bañ keneen jaaye leen ko lu cher loolu yëpp doon ci xeeti taxawu ñi nga xamante ni bii ñoo gàddaa yoon fekk si boroom darul moot magam Serigne Abbas fi mu doon béy Cameroun te nekkoon fa Cheikh Abdoul Khoudous sëñ Abbas 1988 la fa mujj a tool ya mu féetale ko sëñ Dame Fati defe naa <laughs> sëñ Aydara mi xam na ca dara ndax foofee laxasaayu na fa bàyyi am njàngam ci ndigalul waajuram ngir ñëw di ko muritu waaye yaakaar naa ni rëccuwu ko mbay moomee bu masaana ñor daf ko daan séddale way néew doole yi maanaam moom daf doon dund la mag ña doon suñu di farmanku ab sareetam la yor wër di laaj addi borom darul moxti lam ca daan jële ci gerte daf ko daan xolli bu ñu eggee ci bët sëb yi mu seddale ko way néew doole yi ngir ñu mën a ji gerte kon taxawaay bi nga xamante ni taxawoon na ko fii ci Daarul Muxti taxawaay bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk la làq na ngërëmul Cheikh Mahamad Hawa Balla làq na itam ngërëmul magam sëriñam sëriñ Aydara Mbàkke mi mu tuddee sëriñ dara moomam sëriñ Aydaram sëñ Daam Faati moom it foo waajuram tegoon sëriñ Aydara tax na fa la teg njabootu sëriñ Aydara ku jaxasoo woon la woon ndeysaan ak Serigne Moustapha Mbakke meew mu woyut moomee tuuru moom Serigne ay Mbakke daa fa bari ay tànk lool jaxasoon ak moom di dundal la doxoon ci diggante seen waajur yooyu kon li ñu wax ni li duuf ci nag wi yëpp xajul ci cin li ndax fanweeri minute yi daanaka mi ngi bëgg a mat waaye eh, sëñ Dame Faty ngir wane ni way deew way néew doole yi ñoom la féetee lool li ñuy wax politique sunu borom may na ko ci loo xamante ni bii ginnaaw sëriñ Omar Mbakke ma nga xamante ni bii Senghor ci boppam moom moo bëggoon a def sëñ fallu ab député maa ngi enregistrement sëñ Fallou yum naan Senghor daf ma ni woon dama lay jox ab siis maanaam ab chaise à l'Assemblée nationale sëñ Fallou nee na ma ni ko déedéet yow yaay sama siis ci laa ko jox Omar Mbacke mi nii ko dana ko man kon sëñ Omar Mbacke moo njëkk a doon député bu sant Mbacke gannaawam Serigne Dame Fati ndax Serigne Dame Fati bi muy doon député dafa fekk pouvoir ñi nga xamante ni bii man-man ja ak doole ja ñoo ko yoroon mu dem ànd ak ñoom déedéet moo na booba day pouvoir ko ko soxla woon lool waaye moom day mbàkkee politique ndax politique war nañ ko def dañ koo ñaawal waaye politique buñ ko defee dañ ko war a defee politique mooy gere ab cité yonent bi sallallahu alayhi wa politique la doon def di gérer Makka ak Madina kon euh, Sëriñ Daam jamono jooju gis na ni Sénégal am na ñu néew doole mu dem fari ak euh, ku jëga maanaam opposition ndax moom ak président Ablaye Wade ba muy doon député boobu Ablaye Wade doonagul président de la république ba muy ànd ak moom ba sunu borom dogal euh, mu doon ab député booba Ablaye Wade amul lu mu koy jox dafa àndoon ak moom ci ngor ak di xeex ak noteel ba sunu borom dogal mu am ca ndomb ak tànk googu nga xamante ni ñi ko daan déglu bi mu nekkee assemblée nationale xam nañu ni doomu aadama yi la nekkaloon seeni tawat ca la taxawoon ba 1993 jële naa ci Sëriñ Aydara doomam mu ni mbay mi mu daan bay at moomu muy waaje tukki war a dem Italie machine yaag yëpp daf koo jël tëj ko dajale euh, fos yi daal di leen di jox ndigal ni leen yóbbu leen fos yi ci sëñ ay dara bu ngeen demee na tànn ko ci neex bu ñu jógee yi jox leen ko sëriñ Abdou Khoudous maanaam noonu la ko séddalee yi jox leen ko sëriñ Abbas mu mel ni booba moom xamoon na ni lim fi waroon a def mat na moo tax mu séddale jëfandikaay yooyee mu daa bee ci la fi bàyyi ko dem ci ab tukki ci Italie foofee la ko sunu borom moome waaye daal jëmm a ngi ni joo xamante ni li ñu ci waajal eh, lii nu ci jot a indi tuuti la ci eh, xam naa ni damay xalaat waajtaayu màggal gi bu jàllee ma dellu siwaat ci njabootu borom Darou Mouhty gi nga xamante ni duma ko tënk ci ay vingt wala trente minutes kenn ku ci nekk la ma xam ci sa dund dama koy indi ba mu jeex ndax taxawaayu sëriñ Dame Faty daana wax ni addina adduna mii day ak médd mii ci nekk ku ko gën a bëgg daam mu bàyyee la ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni liñ ci ngoon waaye waxtu wi dafa jot kon ñu dellu di ziare njabootu Serigne Dame Faty euh, mu mel ni damay wax ni garab loo fa gajje moo fay saqee ay dara am na taxawaay bu mu taxaw boo xamante ni taxawaay bu am solo la waxoon naa leen ci sëñ Ousmane na mu defoon ak goney ndakaaru ya waaye Serigne Aydara itam sunu boroom dogal na mu fekk ñoo xamante ni dañoo nekkoon ci ak lëndëm mu indi leen ci ak leer te ñu doon doomi teeru duñu dëkkuñu Kajoor dëkkuñu bawal ci réewi taax yi lañu dëkk yi Thiès ak Ndakaaru nga xamante ni bu ne ci lëndëm gi lu ne def nañu ko waaye tey jël na leen récupérer leen def leen ay jullit xàqan def leen ay murit saadix ñuy jàng alquran ak jàng xasida sëriñ Tuubaa am na kuréelu xasidaam goo xamante ni xasida gi mu def ci boroom Daaru Muxti bu ñu ko yëkkatee man looloo may daaneel moo woy xasida ga ndax it nag ba jàng jotee waajuram jàngloo na ko institut Al Azhar bu Thiès boobu Cheikh Mahamadul murtada góor yàlla foofe la doon jànge waaye liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def ci ndaw yi liggéeyal maamam borom darul morti la waxuma ko nag ndax li tubaab di wax ni moi j'ai pas l'habitude de jeter des fleurs aux gens maanaam jay nit ولا ما يبغى لو نكون وعليه ما وقت سرني أي درة كنا كجسر ما لا لير ما خمن تني أي دولة يو يا خمن تني نكون يوم كي يوم وجوبي إيه. مولن جل تغلين جسرات المستقيم تلولو لجيل سرني توبا لا لجيل برام دار موتي لا لجيل سنغال لا دار جنك جيول نقوم جيول ولا فيتي كرمسار نامو فنكه nekkin wu rafet la kon ñoo ngi koy ñaanal yal na ko Serigne Touba ak borom Daarul Muxti taxaw ba liggéey boobu muy liggéey ci ndaw yi ndax ndaw yi ñooy doon magi ëllëg bu ñu sa koo sàggan ci sag ndaw euh, jëkkaloo sa toogaay boo màggee mag mu sàggan ngay doon moom nag mu ngay bay ca waar wa mbay mu am solo li may wax am na ñoo xamante ni bii bu ñu ma déggee danañu ne kii de li mu wax dëgg la ndax bi sëriñ ay Aydara di jot ci man fekk na maa ngi doon agressé maa ngi doon guinze wala maa ngi doon nungu alali jàmbur wala maa ngi doon tux yàmba wala yu mel noonu waaye liggéey liggéey boo xamante ni bii ndaw ye dëddu nañu lëndëm nga ñu nekkoon jublu ci leer bi kon yàlla na ko ci sunu borom jàppale ba mu am ci ndam ci daraja yi maamam borom darul mooti kon mbokk yi maa ngi di sant di leen gërëm di leen jox dox daje ndax trente te maa ngi ci trente six minutes te li ma waajaloon xaajut sax waaye jeex ci am mu kon suba setu Serigne masambo job Samba di Serigne setu Mbacké moom borom daarul mooti moom la ñu fas yéene ngi di sant di leen gërëm jërë jëf waa Italie yëg ngeen xew-xew bu neex bii xayo dikk na ak xéewal yu amul fenn xayo mooy quatrième opérateur de yi fii ci Sénégal basé wu ca Matam ñu taxawal ko depuis 2015 service u xayo yi mën nga ko am fépp foo dem ci àdduna foo nekk mën nga wut abonnement surtout yéen ñi mbokk yi féete Italie soo bëggee xéwalu ci bànneexu xayu da ngay joxe sa carte d'identité Sénégal wala sa passeport nga daal di am ci si application xayu ak numéro téléphone bu bees tàq li ci gën neex ak 10 euros mën nga woote une heure de temps Sénégal 5 euros mën ngaa am 40 minutes de communication yokku si nag 15 jours yu nekk waa Rayo dinañu def promotion 100 pour cent wala 200 ngir gëna a sa waxtu waxtaan ba sa xol féex ak waa Sénégal su fekkee da ngaa bëgg liggéey ak Rayo nag te doon revendeur di jaay crédit wala nga bëgg puce pour woote gëna yomb te gëna neex mën Joko et ak Hassan Hayo directeur marketing Fiji Italie T. 33 94 63 45 73 33 94 63 45 73 Yomi Nek nekk dawal ka sa abonnement Hayo ngir ci na da